woykatu Wally Seck yooyu nga xamante ne nii uh, ci uh, plainte bu ñu leen uh, defoon moom bokk na ci tey nag procureur bi daal di def réquisitoire daal di leen def deux ans ak six mois yoo xamante ne nii ferme lay doon lan moo kii sa xalaat. waaw loolu moom xam nga dégg nañ ko quoi que réquisitoire yi la quoi que procureur moo proposé loolu alors ñu ngi toog di xool quoi lan la si yoon di def parce que dañ yoonu Sénégal dafa wax article 319 moo wax loolu moo ne acte contre nature en voie publique c'est par la loi donc loolu ñun moo tax ñun yoon may ñu ñu mën a dem def suñu plant dugal ko au niveau du procureur léegi dañuy xool lan la yoon di def si loolu li procureur léegi juge bi lan lay def loolu la xool lan lan lay demee waaw loolu rek la ñuy xool ko actuellement. léegi par rapport ak euh, décision bi nga xamante ne procureur jël na ko est-ce que loolu yéen doy na leen est-ce que loolu ngeen doon xaar ak. non ñun loolu mënuñu doy parce que moment bi nga xam ñoom ñi ngi déféré nañ leen ñu nekk euh, moment bi nga xam ne nañ leen ñoom ñu nekk cap euh, ñu nekk fële du moins 100 mètres rëbës moment boobu noonu fekk na soirée Wally Seck mi def soirée Vogue mais ay bariline la sol bariline cest à ñun on a en fait amuñu problème ak la personne de qui que ce soit c'est-à-dire ñun problème ak kenn mais on veut juste savoir c'est quoi l'objectif de porter habillement yoo xam ne habillement jigéen la nekk artiste bu xale yëpp di topp ban image nga bëgg a prôner ci kanamu nit yi c'est que c'est ça le problème au moom laa ñun au ñun ñu ngi dund ñu ngi joxe suñu dépense ñu ngi liggéey yor suñu activité bopp amuñu problème ak benn artiste mais ñun Sénégal mooy suñu problème ak avenir du Sénégal dans cinquante ans ci artistes yi nga xam dañu am influence ci xale yi dañu influence trop ci xale yi loolu mooy suñu problème au fait léegi nag ñun satisfaction mënuñu ko am fekk ñoom arrêté wuñ seen affaire jigéen yooyu ñuy def wax naa ko sànq man yi à chaque fois dama joxe exemple ne y a des danseurs très respectés ku mel ni Pape Moussa Pape Moussa Sonko on le respecte day fecc nga xam ne góor mooy fecc def ay chorégraphies yu rafet bu ñu nee taasukat woykat mais gis nañ Papa Ndiaye coppet da nga xam ni góor la léegi c'est quoi le problème ak Wally Seck ak muy àndal ak seen mode jigéen yeeg affaire góor jigéen ñi solo yu fu jigéen ñi def lan la c'est quoi le problème lu tax lan la donc kon mënuñu ñu ñi mënuñu gëm lu ñu dañoo ñaan wala dañoo soxore koo xamante ne war na ci mën a génn il chante bien mën il peut s'en sortir mais lu tax Youssou Ndour woy na ba màgget kenn mosu ko jiñ góor jigéen alors kon ñun mënuñu nag à chaque fois chaque année ñu am problème ak Wally Seck léegi nag li ñu wax mooy ñun dañuy xaar nga xam yoon lan lay def parce que yoon déggu ñu na xam li li procureur moo moo la yoon di def si loolu et que satisfaction xam kañ lañ koy am bis bu ñoom bis bu ñu arrêté ñoom di di di di comporté wu comme ay góor jigéen di sol ay yëre góor jigéen di def yëfu góor yëfu góor jigéen ci scène bi bu boobu ñun dañu am satisfaction. mais au-delà de là yéen en tant qu'activiste ñoom aussi ay porteurs de voix lañ ay influenceurs lañ loolu est-ce que du andi benn genre haine seen biir. non cest à ay problème haine xam nga haine day fekk nga ñun on a on a pas problème avec au fait dafa fekk ni rek ñoom seen personne ñoom en fait instant yi moom fekk yoon mi ngi def liggéeyam ñun jàppalu ñeen en ñun xam kañ lañ jàppal en mooy ñi nga xam dañuy pervertir di yàq xale yi di def ay di wane ay image yoo xamante ni day nekk di jawarloo ak ndonal Serigne Touba Alaaji Malick Baay Ñas mag ñi donc kon loolu ñun mënuñu ko seetaan ñun dañu créer ay ay mouvement yoo xamante ni day sàmm valeur yi di aar ngir sàmm ndono li nga xam moom la fi mag ñi bàyyi te loolu du ñu bàyyi nag ay ay di ko yàq nag duñ que juste dañuy jàppal en wala dañuy ko nangu on est prêt à tout pour défendre valeur yi nga xam moom la ñi Sénégal dafa am image am ay réalité am dañ koy sàmm ba keroog ñuy sàngoo suuf